ginnaaw bi ñu leen yoo sant leen gërëm leen information bu fi wadd léegi nga xam ni euh, Reug Reug di doomu Sénégal a nekk fii di bëre ci Sénégal di fi am taxawaay boo xam ni euh, bu am solo la amoon benn euh, combat boo xam ne nag ña nga naan ko NMA ma nga ko doon bëree fële nga xam ni mooy ca tugal maanaam bitim réew doomu Sénégal bi nag moo demoon foofee di daan dooleem waaye nag loole yàlla defal na ko ca tawféex ak ndox mu sedd guy ndax moom moo am victoire boo xam ni victoire bu yaatu la moom doomu Sénégal waajale bi combat baa ngi ah, door a jeex léegi nii ci ah, suba si ndax combat boobee ma ngi ko doon am ak ki nga xam ne ah, moo nekk doomu Bruce bi nga xam ne mooy Batrat Gassawef ki nga xam ni combat boobee léegi la yebbeeku léegi la jeex kon Sénégal amaat na ndam ginnaaw Bombardier loolee ma ngi ko am ci maanaam Euh, kawo technique la amee la nga xam ne mooy victoire boo xam ne yebbi na ko kon ñi ngi koy euh, gërëm di ko sant di kontaan ci moom it ci taxawaay bi nga xam ne am na ko ci làmb joojee nga xam ni euh, amoon na solo bu baax a baax nga xam ne daanaka joojee làmb dana woote tuuti ak li nga xam ni mooy am Sénégal di sëgg di yano di daan loolee demewul noonu ndax loolee ay kaawoog lépp ci biir da cay am mu nekk élément boo xam ne dañ ko organiser waaye nag ay millions yu bari ya ca nekk amul fii ci réewum Sénégal la fay fay tamit du ko fay Sénégal kon di ñaan mbër yi nga xam ne euh, ñoo nekk fii ci Sénégal ñu gën góor góorlu euh, tey bëri ci làmb yooyu nga xam ne daanaka dana leen mën a apporter pour ñu mën a defar seen euh, dund gi yëpp loole day am solo bu baax a baax yeneen information ci Aladji Malick